de cela quelques jours bon gis na ne am na ay jafe-jafe yu bari yu ci àndu àndu woon ci pour mu mettre en place stratégie de désobéissance civile boobu wala désobéissance civique léegi nag mu def ce qu'on pourrait appeler un repli stratégique parce que nit aussi ay mbokkam ak ñoñam ak fi nga yaakaar mm-hmm. certainement loolu tax mu dem Ziguinchor xam ne taxawaay bi foofu lay gën a ci moom léegi rek mu opté pour la désobéissance civile boo interroger histoire désobéissance civique dañ ko doon def pour xeex ak nguur wala roi roi yi fi nekkoon ak yooyu parce que ku mel ni Mahatma Gandhi mhm. daan def yu ba jeme noonu bañ règle yi ñu ko teg wala li ñu ko bëgg a teg charte yi ñu koy teg pour mu doxe noonu mhm. boo rappelé bu ñu gëstoo tuuti ci histoire en 1955 am na ku ñu wax Rosa Parks noire américaine la dañu doon ségrégation raciale moo amoon aux États-Unis mm-hmm. ñu ne noir yi waruñu toog ci bis yi ci place yi mm-hmm. moom nag mu xool te dañ ko bindoo naan def ko légiférer ko def ko ay loi bi bi bi tubaab yi ñëwee mu toog jàpp njàmburam bañ ne moom du jóg tey parce que nit ñëpp benn lañu moom du jóg ba di xeex bàyyi léegi nag ci lañ ko jàppee tëj ko prison ci le lendemain nag ci la Martin Luther King. Mhm. ne léegi nañ boycotté bus yi. biñ ko boycotté nag résultat après am nañ ko parce que dañoo def benn loi boo xam ne ne ségrégation raciale c'est contraire à la constitution. Mhm. loolu moo lay won ne désobéissance civile c'est une forme de lutte c'est une forme de prestation. moom la Sonko opté léegi bi mu opté loolu nag c'est une radicalité à l'extrême ah. radicalité boobu nag yàlla y a pouvoir qui est bu lay xamal ne tout da nga koy dégg sax ci ay waxam mu la force reste à la loi mmh. parce que moom aussi c'est le garant de la sécurité des bien et des personnes donc il faut mu déployer arme armement da mmh. mais nag ce choc la bu amee rek day indi yeneen mmh. day indi ay mort indi fitna indi kii boo xoolee po kii bi nu mu tuddati l'affaire Sweet Beauté mhm. depuis mars deux mille vingt et ba léegi ñu ci ay jafe ji di train am na ay mort am na de des une économie paralysée à certains moments ensuite il y aussi les investisseurs qui ont peur donc tout ça dégâts collatéraux yooyu dafa énorme donc ça veut dire que c'est un problème très sérieux c'est une affaire qui était au début qui par la suite est devenu public, mhm. qui par la suite est devenu national, qui par la suite est devenu international. effectivement ci international boobu sax la ñuy jëm parce que Pape Samba booy gis démb ki nga xam ne moom di Ousmane Sonko ci matière de désobéissance civile boobu bi ko Pierre Edouard Faye euh, interroger ci grand format bi dafa expliquer lan moo tax mu décider ko parce que tout simplement dafa nekk ak en face euh, d'un gouvernement du terreur moom noonu la ko noonu ko jàngatee est-ce que yow ko gisee en tant qu'observateur. waa en fait. Euh, euh, acharnement bu acharnement mm. euh, xam nga Ousmane Sonko tey mën nañu wax ne benn sénégalais la. ci Edouard aussi mu ngi koy expliquer ne bu ñu amee ay garantie dina wuy ji mais lui s'il sent bu wuy jee donc les dés sont déjà jetés euh, que ci wàllu prison la gis mais benn arm rek lay dese moom mooy woote wallu parce que bi ñu woowee naar bi bugg ko faat ne ko lu tax nga jublu gànnaar daf ne foofu la yaakaar wëllu maintenant euh, nan la tey pouvoir bi ak yoon ak état bi war a def tey boo euh, wàccee tension bi organiser procès ci dal mhm. euh, te do euh, armée bi état de siège bi ñu xaw a nekk ak économie ni mu ko je pense que loolu aussi euh, lu ñu war a jàngat la man yaakaaruma ne rek da nga war a tey def benn rouleau compresseur rek màbb pour ne non il faut mu wujji il faut nangam instant bi ni tey Sénégal buñ ne takk rek d'ailleurs euh, communiqué bi jógee ci gouverneur par rapport ak euh, les deux roues par rapport ak vente de carburant bi dafa commencé laconique dafa dafa commencé terre terre. Mhm. je pense que tey euh, am na loo xam ne wëy buy këpp gaal kenn du ko wëy ci tefes. Mhm. Sénégal tey buñ ko miinal yàq wàcce armée bi wàcce police. Euh, réewu teraanga la réewu dal la. Mhm. je pense que loolu aussi war nañ ci bàyyi xel te loolu euh, dama ci interpeller ñi nga xam ne tey ñoo njiit yi ñu bàyyi xel ne tey euh, jeunesse bi bu ñu leen miinal ne dañu war a demaat tey mardi. Euh, beneen euh, convocation. mais justement euh, Pape Samba ci loolu la bëggoon ñëw peut-être ñu wax ci est-ce que ce procès en vaut la peine au fait. voilà le jeu à mon avis hein à mon le jeu en vaut pas la chandelle. Mhm. Adji jaru ko Ousmane sonk jaru ko keneen jaru ko réew mi tey la ñu bokk te mënuñ ko séddoo moi je pense que tey fi mu toll ci yàqu-yàqu depuis ñetti at et autres te xamuñ fan lay yem est-ce que jar na ko c'est ça le le le, le c'est ça that's the question mhm. loolu mooy laaj bi mhm. est-ce que lii jar na lii donc je pense que instant bii nii tey képp koo xam ne tey liggéeykat nga ngay journaliste ngay avocat ngay ministre ngay DG tey réew moo xam ne tey dañuy dem kenn xamatul fan nga jëm euh, loolu jaru ko à mon effectivement le président Macky Sall wax na ko su fekkente ne am na ay dossiers yoo xam ne nii dafay yëngal réew moom il décide de prendre ses responsabilités et teg dossiers yooyu noonu ci concam euh, tey gisoo ne euh, bii dossier euh, bokk na ci dossier ñu war a teg ci conco ngir que Sénégal am dal parce que wax nga ko léegi léegi depuis 2021 mars ñu nekk ci jàmm et à chaque fois c'est la bon même scénario dafay dafay représenté wu encore une fois. léegi le seul problème à mon avis est que la machine judiciaire ne peut plus s'arrêter. tout à fait. munoo def benn processus ba yóbbu ko chambre de criminel di dellu ginnaaw loolu mënutul nekk. mënul nekk donc il faut nécessairement un projet maintenant par rapport à Ousmane Sonko il a choisi la désobéissance civile civique mais man xool seetlu naa leen dans son entretien avec. Euh, Pierre-Edouard Faye Pierre-Edouard son discours a évolué am na ouvert tijji na ay brèches. Mhm. léegi brèche yooyu aussi état bi mën na ci il veut des garanties par rapport à sa sécurité pour mu comparer lii état bi aussi mën na seet nu mu joué loolu parce que fi mu toll nii personne n'a intérêt à ce que ce pays brûle. Mhm. te nous sommes assis sur un volcan qui peut entrer en éruption à tout moment xam nga Mao Tse-tung da ko faral di wax une une une étincelle peut provoquer un incendie dans la plaine. il suffit de peur rek pour parce que boo xoolee li xew si Badiana bërki dem trois heures de temps ay nit taxaw tere véhicules yi parce que se disent qu'ils sont des pro-Sonko qu'ils soutiennent le leader tere véhicules yi pendant trois heures de temps mhm. feneen ak feneen donc ça veut dire que mélange détonant bu bu lañ nekk ni qui peut exploser à tout moment politique nag des fois da ngay user de ton intelligence mhm. même booy gérer ça Rousseau de quoi il n'y a aucune grandeur à utiliser la force qu'on a entre ses mains. mais mais mais mais doyen mais doyen Sonko également il, il a été précis Euh, ci euh, à discours am hier avec Pierre-Edouard Faye nee na qu'il demande qu'il demande des garanties garanties yooyu noonu kan moo ko mën a jox ban garantie lañ lañ ko mais peut-être sur sa sur, sécurité parce que a bien expliqué également les choses qui se sont passées euh, récemment forcing bi nga xam ne nii force de l'ordre yi ñu ngi koy def ñu ko bëggee yóbbu tribunal li ma intéressé rek mooy li avocat mi wax avocat mi ne ne ils ont un beau dossier de la part de kii nu mu tudd Bamba si maître Khoureysi Ba nee na ku ñu takkal tribunal rek lañ la mën a setale avocat am na moom moo wax loolu donc ça veut dire Sonko bu demoon mooy gën ci moom. te am na intelligent bi muy dem te ba fa fexe ba dem. Mm. am na aussi entourage boo xam ne mën nañ ko permettre mu dem si vraiment la volonté y Sonko peut partir. léegi nag man je crois que dem moo gën ci moom. parce que si Adji Sarr aman waxul dëgg ñun dañu war a xam Sonko aussi daf ñu war a participer à l'éclatement de la vérité pour pour son futur ouais, parce que kuy xëccoo réew aussi mm. war nga baliser tout les voies mais nag c'est un procès boo xam ne quel que soit l'issue ça ne pas laisser même bu som bu ñu condamné wu Sonko sax day am ay séquelles xam lu tax mm-hmm. parce que question de mœurs la mm-hmm. te kilifa taxaw ak xale bu ndaw bu am ñaar fukkat muy wax lii ak lii ngay weddi wala ngay kii neexul tu n'es pas à moralement day am même boo boo gañee procès bi sax mhm. après day am ay conséquences sociales justement ak morale mhm. sur famille son entourage mhm. ak même Michael Jackson tu te rappelles effectivement même il avait gagné son procès mais affaire bi daf ko topp ba sonn donc ça veut dire que c'est un procès à au risque pour Ousmane Sonko ki aspire à diriger ce pays à l'avenir. Merci euh, au cas où il se rendrait pas. Mhm. on parle de contumace même gis naa sax maître Clédor Ciré di expliquer moom nee na la contumace n'est pas la culpabilité mais le seul hic mooy. il sera défait de ses droits civils et, et Il ne pourra plus se présenter ni élire aussi quelqu'un. Contumace bi ça peut être fatal pour euh, carrière am politique mais moo question de moralité bi nga xam ne doyen yëkkati na ko léegi Pape Samba lu am importance la euh, ci carrière politique am aussi. Mhm. Euh, est-ce que du Sonko loolu lay daw maanaam jàkkaarloo bi mu fas yéene jàkkaarloo ak Adji Sarr yaa ma def lii defuma la lii yaa ma lii est-ce que loolu aussi nekku ni moom lay daw en quelque sorte. man sama gis-gis xëy na du loolu lay daw. man li ma gis moom mooy peut-être euh, procès Adji Sarr aussi bu ñu delloo tuuti ci ginnaaw mooy dafa bëri ay euh, révélation mm. bëri ay fen mm. bëri ay kàcc bëri ay affaire et puis ndaw soo xam ne tey danga nga accuser tey benn nit boo xam ne mën nañu wax ne force populaire la ñu dugal la tey gàtte la yóbbu la ci benn appartement tey ñu naan ay ba ci barki démb rek ñu ngi naan ay ja day jot yi somm démb nga fête sa anniversaire ay bip di la di la di la garder. def sa bi yëpp ku ci nekk politique pouvoir bi di génn di la défendre. Mm. mais kooku koneen ku mun ti doon di nga ne projet politique la. Mm-hmm. donc moom Sonko li mu ci xalaat aussi euh, euh, tey tey na xel donc c'est ça le problème. Mm-hmm. tey bu fekkoon ne tey procès viol yi yeeg yooyu mu ngi am. Mm-hmm. mais il s'agit de Ousmane Sonko bi nga xam ne tey. kenn du laa euh, du laam-laamee dooleem ci wàllu politique maintenant garantie yooyu euh, yooyu teeyam xelam dafa teey par rapport ak euh, dañ ko bëgg a faagaagal jaaree ko si Adji Sarr mm. ak ca njëlbeenu tëgg ba ña ko yóbbu ñu tudd ci ay waa nguur gi ña ko dugal ci oto procès verbal bi donc affaire bi Euh, je pense que ca ca njombantal ba la ca mm. début ba la jusqu'à mm. présent donc lui aussi en tant que humain am na loo xam ne njort na bu taxawee foofu ñu jàpp ko yóbbu ci kaso bi. Mhm. loolu la xalaat donc yooyu euh, moi je pense que au début am na taxawaay boo xam ne tey pouvoir bi bu ko taxawee woon set ci wecc tey si askan bi si boppam tey ñooy xëcc Sonko ne demal nga wujji mais pouvoir bi daf ci takk rip. Mhm. donc en quelque sorte. Mhm. est-ce que aussi euh, euh, doyen li Pape. Pape Samba Sène Pape Samba Sène waxee léegi léegi euh, mën nañ ko mën nañ ko nangu ne que euh, peut-être pouvoir bi dafa dugg trop ci dossier bi tax Sonko taxaw temb rattraqué wu moom aussi. xam nga dafa am loo xam ne il faut ñu bàyyi ci xel mooy la politique c'est la gestion des opportunités soo amee une opportunité sur ton adversaire tu l'exploites. Hmm. loolu kenn mënu ko bañal nit. d'accord je ne sais pas nag. xawma ba à quel niveau le degré de leur implication mais ce sur est wax nii boo xoolee ni affaire yu dëgg mën nañ jàpp ne il y a la main du pouvoir dans dans cette affaire mais du lu ñu mën a wax ni wala prouver ko. Mmh. mais mais mais à ce niveau là à ce à ce doyen ndax mën nañ ci xaar tamit euh, euh, procès bu équitable su fekkee ne. waaw mais xam xam xam lan mooy problème bi. yow tu tu ne reconnais pas une justice qui est injuste te pourtant ñoom def nañ fa recours ci affaire Mame Mbaye Niang Sonko a fait un recours xam nga léegi alternative bu mu am soit mu rejeter totalement la justice soit mu dem comparaître même bu dee parce que bu la ci kenn naxa état pouvoir toujours s'est servi de la justice comme béquille mais moom nee na justice bi du ñëpp ñëpp ñëpp ñoom ñoom ñoo yem. démb wax na ko leeral na ko ñëpp mënuñu yem. mais le président de la république day nommé ay juge mm-hmm. bu la nommé jox la mettre la dans des conditions extraordinaires d'aisance. Mm-hmm. ensuite yow boo xamul le juge pour son indépendance ci moom la dépendre. mais léegi en en considération de tes privilèges mm-hmm. wala yeneen affaires yi juge yi pour ñu indépendant day jafe. il faut nga am haut degré de patriotisme wala yooy pour nga mën a mais ce qui est sûr depuis 60 ba léegi le régime au pouvoir a toujours usé de la justice pour régler des comptes à certains de ses opposants mm-hmm. bon xam nga la ko fii on est en train de mener ce qu'on a appelé ce que j'ai toujours appelé la gonos grande offensive de neutralisation de Ousmane Sonko. Mm. mais ça ne veut pas dire que quand la justice est là tu ne dois pas aller y te répondre parce que am Ablaye Wade tu te mhm. rappelles dans l'affaire Merceil lu gën a garaaw loolu yaa yaa rey vice président conseil constitutionnel pourtant jàng na droit jàng na il a toujours dénoncé la justice mais finalement il est allé comparaître mhm. parce que soit nga mais dans rapport de force nag boo ko gañewul c'est mhm. ça le problème quand tu instaures un rapport de mhm. force boo ko gañewul sa sa t'as tes risques et périls. Euh, Pape Samba j'ai envie de demander à quoi sa euh, s'attendre parce que déjà li xew euh, semaine passée mun na répété wu à li xew semaine passée Ziguinchor mën na répété wu à tout moment Dakar su fekkente ne procès bi dañ ko war a amal mardi. Mhm. oui euh, je pense que loolu moom la ñëpp tiit. ñi nga xam ne ay liggéeykat lañ. ñi ci seen yoon nekkul. Euh, tey euh, compagnie étrangère yi nekk ci réew mi ñi liggéeykat yi moi je pense que euh, le pays là réew mi tey dafa paye benn lourd bi dafa ñàkk lu bëri ci conflit bi te bu ñu sañoon tey ñu vidé ko bu ñu sañoon aussi mu am une solution bu nga xam ne dem beeg dikk bi réew mi jëlaat rythme normalam donc loolu ngay ragal moom la ñëpp di ragal mm. loolu ngay ragal moo waral aussi ñëpp tey euh, tiit bu nga xam ne tey ñu ngi nekk ci guuta mhm. bët bu guddi gu bët setagul je pense que instant bii nii euh, doy na waar doy waar boo xam ne solution war nañ ko mën a am mhm. je pense que li gën mooy comme ni ko Demba waxee Sonko ubbi na ay brèche euh, ci jàkkaarloom ak Pierre Edouard qui est un grand journaliste euh, brèche yooyu c'est de c'est à utiliser je pense que bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu euh, am ay problème mu des fois wàcc reculer pour mieux sauter et puis njiit intérêt réew mi ak dal bi ñu jiital ko ba nga xam ne procès bi procès la Euh, deux mille vingt quatre élection la mais réew mi dafay continuer. Mhm. voilà loolu dafa am solo ñu bàyyi ci xel. Mhm. alors euh, kon euh, doyen qui doit dégonfler cette tension là. ci kan la war a mën a jógee. de deux côtés de deux côtés. bien vrai que il y a général qui a lancé un message très fort. Mhm. parce que tout sermon bi rek. moo moo moo yónnee na yónnee sermon bi. depuis la Korité. contexte bi ñu nekk ak loolu yëpp. loolu yëpp ça montre que moom il est préoccupé par la paix yónnee na ko certainement bi ñu demee seeti président Macky Sall wax nañ ko seen seen xalaat. ci mbiru mhm. réew mi mhm. parce que bu la ci kenn nax fi mu toll nii amul kenn kuy sénégalais boo xam ne bii bëgg nga ci réew mi wala réew rek nga yaakaar parce que ñun demuñu fenn sa xel ngay nelaw ba yàndoor. Mhm. tout le monde a pour pourquoi tout le monde a peur parce que li ñu gis mën na indi musiba. te surtout nous sommes dans une zone très sensible xoolal l'éducation mm -hmm. toutes les écoles de Ziguinchor et de qui sont fermées mhm. au moment où les autres des autres régions ñi ngi jàng mhm. léegi ñoom ñoom ñi ngi toog jànguñu loolu day am conséquence sur le quantum horaire day am aussi conséquence sur les examens mhm. te boo xoolee Ziguinchor c'est une c'est une c'est un c'est une région très scolarisée mm et puis qui toujours produit les meilleurs résultats en termes d'examen donc ça dire que yooyu yëpp dégâts collatéraux yi moo bëri fi mu toll nii les ambassades ak yooyu la diplomatie ñi ngi wax seen ressortissants yi pour ñu def attention tout ça donc ça veut dire climat d'insécurité bi nga xam ne moo mooy mooy planer dans l'air mooy tax ba même les investisseurs fi mu toll nii ñi ngi xool ni ñuy def te nous allons vers une ère nouvelle qui est celle du pétrole et les gaz. Cette ère-là a besoin de sérénité, de stabilité. Et un pays, s'il n'est pas stable, quelles que soient ses richesses, de finir par dans dans la déchéance quoi. par Samba cette question de stabilité là mu buggoon peut-être nga nga nga nga joxe sa xalaat parce que tey jii Sonko à chaque fois buy wax kàddoom bu yëkkatee danaan danaan le président Macky Sall il y perdra ses plumes même bu fekkente ne man bu mën na ma sacrifier kon mun nañ jàpp ne bu dëkk bi amee instabilité yaakaar naa ne nguur gi moo koy njëkk njëkk yëg parce que du point de vue en tout cas sécuritaire. Mhm. lépp plan yëpp dañuy dañuy day touché wu tourisme éducation santé lépp day day day day daal di tàggatémbe. je pense que loolu lay euh, junj en filigrane. Mhm. Euh, parce que man je pense que tey euh, muy Sonko. Euh, ñaanul yàlla même bu nekkoon tey dafa jot ci réew mi jot ci réew moo xam ne réewu euh, c'est en lambeaux. Mm. Euh, muy président Macky Sall aussi gouverner réew moo xam ne tey fépp ay jafe-jafe la yooyu aussi amul sens mm. kon. Euh, foofu la Sonko di di junju ne ko bu ko faagaagalee wala bu bu ko jàppee peut-être plume euh, euh, le président Macky Sall va y laisser ses je pense que loolu rek foofu rek loolu lay xaw a junju mhm. maintenant Sonko man dama bëgg toujours doomu aadama ngay xul xàqan wala kaana muran del wax dëgg donte dañ lay rey mhm. gis nga Sonko am na ñetti nit yoo xam ne tey du Pape Samba moo leen mënoon wax ne leen génn leen ñu génn wala tey euh, Demba Ramata wala keneen am na ñoo xam ne tey dañ koy nooyee dañ ko def tey comme genre euh, dañ ko voué benn culte comme Mara su la leen def leen ñu def. bàyyi la ñu bàyyi la preuve mooy dem bi mu tuddee ba a dugub rek tey gars yu bëri <laughs> bañ a dugub lañ. voilà voilà dugub moom jar leen. c'est ça bi mu fi defee selfie sànni benn majéri et autres. gis donc euh, phénomène la. Mhm. loolu nag suñ borom moom moo koy def. maintenant comment est naka ngay utiliser tey cette arme là. boo désamorcé ko après continuer mhm. foofu nag euh, nga gis ne euh, ñi mu jàkkaar lool di xeex ak ñoom mhm. foofu la ñuy jouer si jeu par exemple tey boo boo continuer ñun ay observateur lañ quoi euh, on man j'en ai rien à muy Sonko muy ñi nekk si pouvoir bi mais tey da ngay xool ne benn moment ci Sonko qui dicte le jeu c'est lui qui euh, euh, qui conduit les chose mhm. mooy génn Euh, pouvoir bi yëpp ku ci nekk conférence de presse nangam nangam alors que ça devait être le contraire parce que ñoom ils ont bilan à défendre am nañ liggéey bu ñu war a taxawal mais boo ko xoolee tey dañu dañu dañu ko créer en mm. monstre depuis tey radiation bi ba léegi def ko benn genre euh, bomb à fragmentation boo xam ne tey tëj bi ak rey bi ak jàpp bi ak bàyyi bi danga naan tey est-ce que du mbëtt bu dee ci loxo en mm. quelque sorte mm. maintenant il est temps que ak sérénité ak xalaat parce que le président de la république ñu njiiti réew mi ak pouvoir bi ñoo ñoo ñu ëpp information ñoo ñu ëpp ay possibilité mm. ñoo ñu ëpp ay moyens. pour mm. di jàngat situation xool naka lañ ciy génnee quoi en fait. alors doyen euh, ci noonu sax laay laay laay jàllee directement ci li nga xam ne ni war nañ ko wax ci mu dialogue bi parce que euh, on a également la main tendue du du chef de l'État te loolu aussi peut-être euh, benn brèche la pour moom pour essayer de de de. de maintenir cette stabilité-là. Bon, en tout cas ce qui est avant may wax wax jalo bi. Mm. le pouvoir mesure la force de Sonko. xam nañ ko xam nañ ko xam nañ doole ji am il est puissant loolu moom la pouvoir xam na ko. léegi ñu bari defoon nañ sax ces jours si dinañ koo jéem a arrêté mais arrêté Sonko fi mu toll nii. li moom la mën a jural moo graw ah. léegi nag certainement ils sont en train de faire de réfléchir. pour fexe ba procès bi ñu gérer ko dans la sérénité et parce que pour parce que ce pays là n'a pas besoin de s'enflammer xool li daloon Côte d'Ivoire et puis nous sommes entourés dans un cercle de feu nous sommes entourés par un cercle de feu mm-hmm. il y a le Mali qui s'échauffe mm-hmm. il la Guinée la Guinée-Bissau la Gambie ñun yàlla suturaal ñu mm-hmm. ak sunu ñaanu mag ñu baax ñi ba wax dëgg yàlla di tal naan attaaya